salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi lee larmes de Moustapha Naam ndeke Moustapha Naam li mu doon jooy lépp jooyul woon pour li ni football jooyul woon coupe di monde bi jooyul woon coupe d'Afrique bi ndeke Guinée taxoon muy jooy Guinée ñu gën koo xam ci Virginie day marié ak Moustapha Naam le 22 incha allahu rabbi gars yi doon wax Bamba Dieng lay génnal Bamba jee nangam non man naam nag dafa topp Bamba ba mu yàgg rek Bamba six jours xam nga Bamba moom bu déggee coow lu bëri mën naa siisu naka jekk ma xam ne ñoom seen defaru beeg ñoom joueur yi rek moo tax Sénégal amal boo amee rek ñëpp lay bëgg ñii danoo yàgg bëgg ay joueur joueur yi lan teg seen bët yi waxuñu ci maçon dara du feeraay du jaaykatu carotte jambukatu dànq dànq jaa ngi si dem jaa ngi kew jaa ngi feer juróom këriñ fukk waxuñu ci dara doonoon footballeur professionnel am gel yu baax am jigéen ñu baax yal na yàlla def jàmm ci mariage bi le 22 les larmes